aaru mhm. ministère de mhm. boobu mhm. Eh, ñëpp ci joxoon sentif dañu ci sàkk woon sax pour fanweer ak ñaar ci ay milliards yoo xamee ni nañu ko génneeg nañu ko dugaleeg ña ca bokk ko mu sàkk pour ñu ubbi ci ab enquête ñoom def nañ ci enquête mais na ci procureur wax maanaam gis nga li doon wax nda dañoo jël xawma lan teg sous la coude dossier yooyu bokk na ci bii xam lañ la doon wax som c'est le ministre Alioune Ndoye moo ko doon défendre naa ne non secret défense ko <laughs> bañ ko waxee dañ ko ne secret défense ñu ne ay oto nga jënd mhm. jënd ay feta ñu guerre la mhm. ñu non environnement eaux et ñoom ñooy kii pour braconnage beeg yooyu ñu ne la d'accord mën na leen ko may waaye lu jël wàllu défense woo benn Boubacar Sima kooku c'est un cours ci mbirum euh, doomu Niger mm-hmm. xaalisam lépp ci loolu lañ ko ay israélien yoo xamee ni tamit dañoo taxawal benn société nok 2021 mm-hmm. gagné masse vide maanaam mm-hmm. quelques mois après la création de la société li kon ba ñuy société taxoon a jóg mhm. dañ ko ne créer rapidement comme ça mu am tur ak sant comme ça bu ñu jox marché bu ñu jox la ko quarante cinq mhm. milliards il parfaitement raison de demander mhm. que ñu leeral mbir moomu parce que quand même quarante cinq milliards euh, ci yooyu la jamono am na yenn ci ay kuréel santé ak ñeneen ñu amul weccit bu ñu mën a jëndalee wala euh, fajee doomu réewum Sénégal nga jël quarante cinq milliards ne ni ay oto laa ci jënd ay armes Ah, jënd ñu ne la foo ko jëndee ce sont des étrangers un réseau de journalistes ñoom ñoo ébruité l'affaire ils ont fait le tour des plateaux ñu woo leen ba ci c'est un débat qui avait fait euh, xawma un sujet qui avait fait F24 RFI ak feneen àdduna ci ngawte ci 45 milliards yoo xamee ni am na lu jiitu woon 45 milliards yooyu mm-hmm. mbirum Oryx yooyu luñ ci wax ñi naan ministre Djiby Oryx ak yeneen ak yeneen gis Au début. Quand ya y a des faits de, de, prédation financière. Mm des autorités et des structures yu ñu créer pour ñu. Mm-hmm. ñu mën ko lijjanti bu ñu defee seen lijjanti ba noppi wala ñu def seen enquête ba noppi bu ñu ko jël teg ko à côté CENTIF am na lu mu ci defoon may nuyu. Mm-hmm. Euh, mu may dégg xam naa on commissaire. ma koy ziar xam na boppam jarul ma koy tudd. Mm-hmm. mais ñu bari def nañ ci liggéey ba noppi ba war ba jébbal ko yoon ñiy taxaw ci kam yoon ne leen non non secret défense leen ci wax secret défense. Mm-hmm. eaux et forêt maanaam àll beeg àll mbaag yooyu moom nga yore donte am na ay braconnage waaye 45 milliards ci jënd ay sa armée amul milliards mu jëndee ay mm-hmm. fetal ñoom ñoo gën a taxaw fi ñu toll nii pour xeex ci mbirum terrorisme ak yeneen ak yeneen. Mhm. mais ça avait fait un débat. jël ko fàtte ko teg ko na le aujourd'hui est soulevé à nouveau mais nañ jusqu'au bout qu'on mhm. ressorte les rapports yi nga xam ne defoon nañ mhm. ñu génne ko ñu leeral nit ñi lan moo tax euh, ñu ñu dugal xaalis ci biir d'accord débat la buñ tegaat ci table bi ma ko démb conseil des ministres la ko